contentement laay am di jën ak yéen chaque jour ah internautes yi nee naa leen national ak international yi ñuy safoo ndamoo seen émission Leewtoo ak comme ni ma koy defee rek chaque jour damay dem ci quartier bu ne waaye toog champion bu ne ndaanaan bu ne waxtaan ak moom ci lépp lu soxal làmb waaye lu soxal carrière tey nag maa ngi fii Fass su ma nee Fass nag xale dem ci xale Fass bi xale Fass bennoo bi borom mafia arma dias bi ñu nuyu ko rek bàyyi yi Ada nuyu naa la waaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jawlaxa almisba karafal fano maa la nuyu di la fay waaw di la dalal bu baax di la bëggee bu baax ba ñu fekk la fii sa biir koñ mhm. nga toog say gay la waral lool waaw bi ma fiyaa alma jaasi bi la ah Iltara Arafas. yëkkati kañ nga sa micro ma fi yaa Arafas bi la quoi bi ma fi yaa ma fi bi ma fi ma fi yaa quoi Iltara samay booy lañ mais samay gaan lañ barki Serigne Bamba dañ may yedd waaw dañ may yedd quoi te ay xale lañ barki Serigne Bamba ñu gis xale yi sopp la ba daal lee tuddee Mbappé lan moo waral Mbappé bi waaw loolu noonu daanaka dafa nekk lu gaaw rek ndaxte Arafas combat am day gaaw quoi caaro liñ dëkk Arafas combat day gaaw te du xalaat rak muy gaaw la moo tax waa xam nga rek gars yi tuddee ko Mbappé te Mbappé moom day dem rek kenn du ko téye ba nga tuddee loolu loolu daal ànd ànd ànd naag li nga méngoo naag li nga nekk Mbappé normal mooy jamono Mbappé mooy jamono Arafas tamit mooy jamono mhm. waaw ñu mooy Jokal mhm. yàggul ko jël def. nga ñëw fii waaw laamu jooju waaj nañ ndaxte laamu jooj dafa nekkoon laamu joo xam ne ne dañu waroon wane suñu bopp daal mhm. ndaxte Jokal champion la mhm. waaw def ay preuve am si laamu daan ay mhm. moo tax ñu jël ko bërëg moom yàlla may ndam si kawam combat bi amee ba léegi Mansour gisante ñoo Ada Fass ñi gis combat bi Ada Fass jëlee ko à cœur soo waxee ne combat bi dama koo soxla parce que dafa am feneen fu ma jëm Jokal la la yóbbu fu mu ne fu ma yóbbu laamu jëpp xam nañ xam fu ma yóbbu ndaxte Jokal champion la waaw te dama ñëw bëri moom wax lu ma lu ma wax loolu laa bëree dama ne laa minutes te laa ji matul deux minutes di ko nuyu au passage quoi sama grand la grand bu ma la laa moo ñu boole woon jeex na mm-hmm. foo déggoon foo déggoon loolu li nga wax nga ñoo def ko da nga ko déggoon ci mystique wala sa entraînement moo la may li ni mel non barke Sëriñ Bamba lu mystique quoi dañoo gëm suñu bop mm-hmm. instant lu nekk suñu laam nekk suñu kanam quoi ñun instant ni ama lu ñuy xalaat amatul xalaat boog mm-hmm. waaw ne free Euh, Free bàcc la dem ñu dem si ñoom. Mhm. noonu la demee. ci mystique boobu laa des ba léegi jéggi sa combat ak Jokkel suba si ñu ñëw gis Ada Fass rango jaan jaan bi jaanu lool la. non loolu noonu sur la mujj la loolu sëñ Babacar sama xarit sama mhm. ko jox. Mhm. ko jox rek pour ma rango ko xaw ma lu mu doon. mu rango jaan bi coow li bari ñu ne Ada Fass de imité Ama Baldé loolu am na wala tombé moo ay gaaf. waaw tombé waral ay gaaf rek ndaxte ku nekk ak sa jamono. waaw ku nekk sa jamono Ada Fass dafa ñëw indi slogan boppam mm-hmm. loolu la demee. Mm-hmm. Mm-hmm. mafia Alma bi nag. waaw mafia Alma Diassi ñoo ngi nii ñoom mooy loolu duñ daw dara booy ay champion lañ. barke Serigne Babou ay xale lañ mais ay champion lañ. barke Serigne Babou. lan moo doon ngeen tuddee ko euh, tuddee ko Mbappé indi euh, mafia Alma Diassi ma léegi daf ma def kaa mafia Alma bi lan moo tax. mafia Alma Diassi bi mafia non kii mooy mafia Alma Dia. lan mooy ni mafia Alma Dia. non amul xalaat xalaat ñàkk la quoi bi firi rek. bàcc daa bëri ay tim kii yow yaban tim nga bokk. ultra arafas bi rek ne ultra bi rek. moo tax waaw moom rek la ñuy topp tamit quoi fu mu dem foofu la ñuy dem. a xam moom balaa may ñëw ci ci pandaw bi. ñu gis ngay bëre. mën naa ne avant combat maa ngi doon topp say statut di topp say entraînement topp la gis ful bi la doon topp xale yaakaar bi ñu am ci lan la dañoo jàpp ne Arafas bu bari day daan wala Arafas moo dund ak loolu ak ñoom ba tax xale yëpp jug topp ko. loolu noonu du du du du du Fass kese quoi Ndakaaru ñooñu topp barki Serigne Saliou ma dama limee rek damay juum jeunesse bi yëpp barki Serigne Saliou Fatma ma sama làmb dafa métti ndax nag bi yëpp ay taxaw boog di ma xaar ngemb barki Seydina Mohamed jeunesse bi laa tout temps kii quoi non naa ne maa nekk ndaw si laa mujj quoi ma jox bopp dañ ma gëm boog barki te luñ ma gëm noonu xam naa ne ñoom duñ ko mos a rëccu incha allah non sama laam far bi du ma deux minutes ak doon ah, mm. te lu muy dem muy gën ay seconde lay jeex ñu ngi say entraînement di teg lu méttee métti métti ba nga doon entraîné poids nga doon yokk wala endurance nga doon yokk. non doole instant yi soxla ma poids man daa am doole quoi. Mhm. daa am lu muy liggéey ak man Père mhm. kooku ama la. Mhm. maa koy ñaanal gudd fan. ak wér. waaw incha allah. soo déggante ak mbëru Fass yi. man seen rek laa man mbëru Fass yëpp man xale laa nday je suis encore jeune xale bu ndaw laa. barke Serigne Saliou làmb mooy loolu rek dañ si dañoo dëkk goxu làmb. waaw màggee si làmb mënuñu ko bañ. barke Serigne Bamba mais ñun ay tu tànk lañ bokk. waaw maa ngi ñaanal sama grand yi fi nekk yëpp di la ñaanal jàmm. képp ku am bis suñu borom may la ndam. nga bëri combat daan te xam ne li ñu naan lu mu mbëtt bëgg loolu la bari bëgg ku daan sa bët ci kaw nga xool fu mu ne nii. waaw Arafat dal moo nekk sa bët. man man du ma laaj quoi. mais ponkal man ponkal yi laa soxla. chaque jour da ngeen ne ponkal ponkal yi bari nañ fi peut être bari nañ booy naa ponkal la ñee nag ñu ne ay ponkal la. kan man ponkal laa soxla man du ma lim. ndax de mosuma lim adversaire doomu aadama quoi ndax de man du ma lim du ma mbër buy lim ay tur xala laa damaa nekk si yoon. nga ne doo lim ki nga xamante ni mooy Zarko. ñu ne mm-hmm. Ada Fass mu ngi laaj Zarko yaa ko doon laaj wala. non laaju ma ko. ndey barki Serigne Saliou man mosuma laaj mbër man du ma laaj mbër. naka làmb dafa gudd dafa gudd quoi làmb dafa gudd waa dafa gudd tànk kenn xamul fii dajawaatee moo tax man dama laaj mbër mais instant yi nii ñëpp xam nañ ne Ada Fass daf na ay preuve am sa man damaa wane samay preuve toog ma di nelaw damaa wane samay preuve bëre daan te sama làmb dama ñëw fese stade bi ñëw bëre mu neex ma tuus mu neex ma daal la dem sama yoon kon bëri dañoo war a ñëw ñu bëri waaw du ma lim ay tour nag quoi waaw doo lim ay tour waaye man man mi ñëw maay lim tour gi nga xam te ni mooy may xale yëpp sans jommal xale dëggoo ma la man du ma lim tur nday non waxuma la nga lim man maa la limal ndax pare nga pour bëre ak moom loolu kañ leer na ñun pare pour bëre ak ñëpp nday barki Serigne Sallou képp ku pare pour bëre ak Arafas Arafas pare na pour bëre ak yow man loolu du si dellu ginnaaw ak koo doon doo bëre ren Arafas déwén di ngeen bëre barki ah, Serigne Sallou instant bi lay gën a nooy ren boo bëre ak moom déwén da ngeen di te bu ngeen di bëre boobu mooy gën a métti xale bi day màgg lu a dëggoo ma la ñooñu. ñooñu man maa ngi limal man maa ngi limal yow boobu ñoom ku ma bañ da ngaa dang da nga maa ragal. consort boobu laa wax boobu. consort boobu si làmb. barki Serigne Saliou ku ma ku ma bañ. ku ma bañ man mii da nga maa ragal. ndax lu ñuy feeku si làmb instant bii man la sama waay man ñoom man lu may feeku si làmb ñoom ñu ngi ko feeku supporter si làmb man damay fesal stade baaxu mu neex bëri mu neex daan dem su ma yor barke man du ma leen mënul bañ ñoom mënuñu maa bañ si làmb quoi naa dem man xala laa mais damaa wane samay preuve waaw damaa wane damaa wane samay preuve barke sëriñ Bamba Ada Poutine Ada Alma Diassé bi ki nga xam xanaa yow ne nga ragaloo kenn ki ne Ada Fass da ko a ragalee xel muy mbër ba ca eh, yaraax xam nga ko Mansour mbër ba ca yaraax mbër boobu noonu pare nga pour bëri moom wala dëgëw maa la caatu yaraax borom borom prip dip ñeme nga bëri Fatma man du ma gas mba nday nday man du ma gas si làmb te sama làmb barke alxuraanul karim laa lay wax nii du ma sax mais ku ma am di nga xam ne ne gaynde nga am te ar bu ne prip nga xam ne ne gaynde nga am ak koo mënti doon man Mansour da ma daan la nga xeex ma duma la. mafia bi mafia may leen ma may leen ma kii tontagul li ma ba léegi de dañoo ne woon combat Jokal Arafas comme combat caatu yaraax la woon ak Arafas mais Arafas moo xaw a pivoté. yow loolu moo nekk demi-finale ndaxte man ñu ma daan si làmb ñooñu daañu leen si làmb. Fatma ñooñu maa leen ëpp biri làmb fuuf ñooñu kenn xamul leen zéro boobu lañu lañu musat waaw bëree ak ñoom si làmb yoonu làmb boolewuñu man damaa wane sama preuve bopp quoi barki Seydina Mohamed ma instant yi concert bu ma xam nañ ko na gaayoo ñëw ñu bëre bu ñu bërewul ñoom na rek dinaa bëreeg ñeneen si làmbu man toog ma leen di leen xaar dama ne na ñëw ñu bëre man tey jii man xaaruma leen làmb mooy sama sport moom laa am quoi xale laa buñ bëriwul man dinaa bëreeg ñeneen te incha allah rabi si kanam raw li bët ñoom ñoo ñëw di ma laaj man dama leen laaj waaw incha allah quoi am na lu may tëjee mais du ma xoolee léegi Mansour xam nga la wax jëm ñu gis combat léegi fi muy jeexee mën naa ne axlu lamb yëpp ñu koy ñaawlu ay avertissement lay jeexee wala mbër bi avertissement daal lu ko tënk avertissement moom lu jeexee. ndax amul voilà tey man sama premier ñaar combat laa bëri onze combat mhm. man mosuma am si lamb sa man mosuma am avertissement. le Mbappé de l'arène. le Benjamin ma man sama lamb du ma deux minutes dégg ma lu mu munti demee man sama lamb du ma deux minutes gaynde laa ko waa man du ma xalaat mhm. barki Serigne Saliou. man ay avertissement xaw ma ko si làmb man sport laa xam ñëw bëre wane lu ma indi def sama fulla dem sama yoon barke Serigne Bamba waaw combat yi ñëw diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux la <laughs> nga ci gis waaw ñooñu suñu grand lañ ñooñu ay jàmbaar lañ ñooñu da leen di ñaanal jaamu rek ndax ñooñu suñu ay grand lañ waaw suñu ay grand lañ da leen leen di ñaanal rek chaque jour tamit ñuy gëstu tout tànk yi quoi xam ne dañu war a bëre pour sponsor yi ñëwaat si lamb làmb dégg gën a dégg si la da gën a dégg daal waaw loolu rek laa ni sas quoi ndax ne ñoom ay jàmbaar lañ. Mm-hmm. looy wax waa CNG tey boo doon boo fa nekkoon di am loo fay bëgg a yokk wala ñu ko koy wàññi nan lay doon. non CNG di leen féliciter rek ndaxte ñoom ñooy suñu jiit quoi ñoom ñoo ñuy teg si yoon. Mm-hmm. tey jii CNG ba amul woon làmb mooy loolu daal. du organisation. Mm-hmm. CNG ñun da leen rek suñu grand yi fa nekk ak suñu pap yi. di ñu gën ñu organiser loolu rek la ñaanal waaw. Eh, ñaar tamit ñu safi daal. Ada ñu gis ay combat am day nii ay combat am day métti waaye ñu gis open press am naa ne ful bi koy topp ak coono ci am dina am ñoo xam ne dañ ciy xaw a làqu ñu gis say open press bu jeexee day bëri agression day bëri coow bëri xeexoo bari xuloo duñ ne nag waaye supporteru Ada Fass lañu parce que gisuñu leen supporteru Ada Fass dañuy seetaan buñ paree dem ñibbi mais ñi ciy làqu ban message nga ne di lancer. en tant que lutteur man sama open press la xale laa quoi chaque jour koy woote. espoir waaw pour fiyal xol la rek nekkul violence Sénégal benn bopp la kay mënu ko xar ñaar man warewuma benn violence si làmb man sama open presse boo yëpp sinon à la violence la ñuy ñëw mais xam nga ni tamit neer yi parfois du tàngee bu xonte day di wax gaa yëpp tamit ah dañ ma di bàyyi dañ ma di bàyyi xel ñu may déglu di xam ne ne dañ dañoo yaakaar seen mbër te seen mbër si làmb la yaakaar waaw dañ ma di bàyyi bu baax di dox sinon à la violence chaque jour ñuy neexal esat neexal laa ma ji daan ñibbi si feetu incha allah. wala mm-hmm. demee ban message ngay lancé axlu làmb balaa ñuy tëj. ah axlu làmb ji nañ ne bii nii macha allah daal. ñoo ngi sant yàlla bu baax. làmb ji instant bi gaa ñu ngi ñuy taxaw bu baax baax a baax. mais di ne na gaa ñëw ñu bëree. man mënuma man mënuma toog une semaine te takkuma ngemb quoi. man mbër boobu laa dama bëgg di bëree chaque chaque trois mois ma bëree. na ponk li ñëw ñu bëree. foofu laay loolu laay tëjee man foofu laa yem Siteu jëlee ñu Siteu bu dee dëgg la. tarkindaa bi bu dee dëgg la. ñu waaw ma xoolal nga ko sama caméraman man Cheikh la parisien laa tudd. Ada Fass mbër sa diwaan daan rek lañ xam. ñun duñu reculer duñ cuub suñu drapeau. nañu jox mbër yu mag yi ñu bëre. kii waay waay maam jee ko ñaanal ruufe bule faa mooy maamam borom kaaw gaas. na gaa yi bëre. déedéet déedéet Mansour dagal ma lii. ralu li ñuy def ay xale lañ lañ soxla bi ngeen di jàll li neexuma de ayca nuyu naa la sëñ bi ñu ñëw sa si Ada Fass daal mën a wax waaw aada moom sama lépp la quoi comme ni mu nekkee lépp ñëpp rek aada nekk na loo xam ne nekkatul pour benn nit aada Sénégal la aada aada àdduna la moo tax tey li ñuy ñaan rek mooy yàlla may ko wér guddal fanam talak fekkee boobu yéeneem ci doomu aadama yëpp parce que aada ku ko jëlul da nga koo ragal ak koo mën a doon nag mbër boo mën a doon ak foo mën a dëkk ñu ko jëlu ku ko jëlul léegi di nga ko jël déwén te bu boobaa dalay raw làmb dootu leen boole yàlla jamono ju ne dafa am ku indi teg ko fi faaw gars yi di bàyyi xel xam ne yàlla moo ko sampal boppam te taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën fay ko comprendre nga ku ko jëlul da nga koo ragal man maay jàkkaarloo gars yi monde entier di wax ak ñoom ku jëlul aada da nga ko ragal ñëpp nag ma kenn sans exception amul lii wala lee ñun du ñu lim mbër parce que mbër bi dépassé na fu muy limee mbër moom moo wone ay preuve ba yegg fii kon je pense que ni tey euh, dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñoom la war a bëreel aada pour ñu xam dëgg-dëgg mooy kan nañ ko jox ponkal yi gars yi di coow ci làmb ji du def ak ñoom une minute wala trente secondes loolu nekkul loo xam ne question de ay gëm-gëm kese la lu mu liggéey la loo xam ne heure bu ñëwee ci làmb da koy wane barki alxuraanu karim barki borom Touba du mbëru fala njalaxaan yii nii nii du mbër buy tatone aada bu songee def action bëre daan dem ñibbi violence bi ñuy wax nag dama la ci revenir foofu rek aada du moom teg ñi ko jege amul kenn kuy def violence peut-être gars yi feneen la ñuy jóge ñëw te aada comme li ma la rek àdduna ñoo ko yaakaar te maanaam tey boo amee foo toll sa am fu mu toll ci àdduna aussi ñëpp dañuy ñëw bootu sa ginnaaw ñëw bootu sa public te du yow moom wootewul violence aada xamul lu ñaaw ñii ànd ak moom xamuñu lu ñaaw ñii ànd ak moom duñ jël yëfu jàmbur dañuy liggéey dóor waar gaa yëpp ngay gis boo ñëwee fii bëccëg doo fi gis kenn ñëppay dem liggéeyi ñi ay élève di jàng ay intellectuel ñoo fi nekk booy Fass du ragal te du dellu ginnaaw doomu Fass du ragal du dellu ginnaaw doomu Ndakaaru du ragal du dellu ginnaaw ndax Ndakaaru Sénégal aada Sénégal te ñun ñëpp benn lañ na gaa yëpp am yéene bu rafet rek waaw xam ni booy bi wax dëgg yàlla moom bu sayoon tey lépp day yaatu lépp day rafet parce que moom rek bu desoon ci moom xëy na suba suba mën na bàyyi làmb nekk ci leneen mm-hmm. waaye dañoo war a xam ne moom làmb la yaakaar mm-hmm. te ñi yaakaar aada aussi moom làmb la yaakaar ku koy jàppale na ñëw jàppale ko woowuñu kenn écarté wuñu kenn mm-hmm. mais ku ñëw sa kër la ku ñëwul sa kër la mooy woowuñu kenn écarté wuñu kenn wax dafa laaj dégg-dégg woowuñu kenn écarté wuñu kenn ku fi ñëw sa kër la ku fi ñëwul sa kër la mooy damay revenir ci li ma wax léegi rek champion la te wax dëgg yàlla buñ ko dimbalee tuuti dinañ gis mbër boo xam ne xëy na dinañ ko gëj a gis ci jamono ñoom Robert wala jamono ñoom Mbaye Guèye wala Tafa Guèye Maodo Mbaye keroog ba muy wax loolu da ko rëccale boo ko joxaatoon micro peut-être amaana sax mun na ci bañ a jaaral wala mu bañ a xam li mu wax mhm. un futur tigre est né nañ ko jàppale loolu du waxu kese dafa am yàlla lu muy def ci doomu aadama su koy wax du ko tey soo mhm. laajaatoon xamatul sax la wax mhm. aada moo toll foofu quoi. Mhm. waaw monsieur bëgg nañ si joxoon micro bi maam ma sàcc tuuti laaj la ko. wax dëgg. xool sama caméraman. maa ngi koy xool. yaa bu baax a baax sax buy bëri la ban pression ngay am fan lay sa fees suñu bët. Hmm? fu ñu juddoo la lu ñu sonal mooy dégg daaj ak fit ñun faas lañ dëgg amuñu benn pression duñ bëre di tiit sax. arwa bi bëre yàlla xam ne damay toog ñëpp di pression mën na leen laaj dee. fii lay gën a mënee bëre action balaa mu balaa mu action gën a neex ñu jàpp ngembam wala ñu wër ko ndomb damay zibilé naan daan na ko daan na ko làmb jéem du doyee daan te du jàpp sa ngem te du bëre deux minutes lu doy waar ci làmb laay onze combat neuf victoire ban champion moo ko fi def kii mooy aara Ndakaaru borom dëkk bi yal min la xale bu ndaw muumin eh lu yëngu la ko yëngala bu doole nga bukki bi yëy ba yëy yaxu yëkkatu yax di nga xam ne teera nga ci aara Fass kii champion la joxal ma arafas mu tëj. jërëjëf réew. dos. kii juróom ko sabali mooy maamam. li olof naan li xew ci xale yi nee nañ dañuy rocc sa dugal ci Ada rek jëm non li li rek jëm li dugg ci cin bi dañuy bàyyi Ada mu tàggatoo ak lu lam lan nga tàggatoo ak Ada maa ngi nuyu di sant ñëpp waaw di ne daanaka li yombul quoi nga ñëw fekk lii nii. jom moo ñu ko may ak fula fayda ah, nday barki Serigne Bamba ma la koy rek. laamu yi dugg ñu si pour bëre dañoo dugg pour nekk champion. dugguñu duggante wuñu si de dañ ci dugg pour nekk champion quoi duggante ñu si pour bëre ni ay combat ñalaxaan jamono ji bu ma nekkee combat ñalaxaan mooy tax may bëriwaat si làmb bàyyi làmb na champion ñoo ñu bëree. combat ñalaxaan mooy lan. combat ñu man bëggatuma Arafat da da koy rey. laa bëgg Arafat tey mu dee. tey mu dee dañ koy rey. barki Serigne Bamba. ma ñëw wane lu kenn dul gis si àdduna. waaw di gërëm ñëpp. waaw maa ngi gërëm tamit sama waa gox waa maa ngi gërëm bu baax bi ma limee damay juum. di sant képp ku may ñaanal maa ngi lay sant bu baax barki Serigne Saliou ndaxte ñun àdduna moo ñu yaakaar nday man xale bu ndaw laa man ma bàyyi jàng yaagul mais damaa gëm làmb man bëri ma wax de mais damaa am fula. moo nga takk xale. non man damaa am fula barki Serigne Saliou man lu may wax si média sax bëriwul. gars yi xam nañ loolu. mais damaa am fu ma teg sama bët si làmb te barki Serigne Saliou Mbacke si kàttan suñu borom yàlla bi maye incha allah rabbi dinañu ko may te gëm nañ ko. waaw ñoo supporté Ada Fass maa leen di gërëm di leen sant di wax Pape Thialis na ñëw tamit waaw soxla nañ benn ah, benn signature contrat ma ñëw tëggal ñu benn laaw. li jënd li jënd combat bi yaa ngi sos. waaw noonu la tey suñu combat ñëw ñu bëree. waaw di leen bëggee dina kontaan naa ak sa mafia ultra bi tamit ak alma jaasi bi ak ak ak waa diaspora bi waa diaspora bi waa di bëggee anti bu sifa maa ngi koy bëggee bu baax sama grand la moom borom baax la barke Serigne Bamba dinañ kontaan naa bu baax barke Serigne Salim Mbacké waaw jaajëf ayca bëgg ci yéen waaye di bëgg ci nga xam ne yëpp maa di bëggee soninke yëpp tamit maa leen di bëggee di bëggee soninke ak ngërëm ñeel la ki mooy Ada di ko bëggee bu baax a baax waaye di bëggee mafia ultra bi mafia alma jaas bi ah firi rek ah yaa ma gën a xam di bëggee baax a baax waaye cant ak ngërëm dégg nga bàyyeegule sama doba sama grand tamit waaw na ko yaa parking automobile maa ngi koy gërëm tamit moom sama grand la si ñaar ñooñu rek laa yem ñeneen ñëpp maa leen di waaw maa leen di bëggee. big up waaw barke Serigne Bamba. ayca bëggee ñëpp ñu fi taxawaa waaye di bëggee ki nga xamante ne moo jàpp samay mbagg ba yëpp def def TV tamit jàmbaar la. du ma limee dama fi fanaan quoi. <laughs> barke ah, Serigne Bamba ah, su du ma may nga lim. non su du ma may nga lim. dama fi limee dama fi fanaan. Ah, barke Serigne Bamba kon bu lim sanal ñëpp ak sama staff sama staff. staff Ada Fass tamit maa la di bëggee ñooñu ay jàmbaar lañ. waaw ñooñu du ma lim quoi ñooñu ñooy Ada Fass quoi. jamono ji ñoom a tax may bëre. Mm-hmm. atu tànk yi. barke Serigne Saliou waaw. Aïcha cant nañ gërëm ñeel na ko waaye cant ak gërëm ñeel na sama caméraman bi ah Mansour Fall Fall Njaga Yaaram surtout maam Cheikh Ibra Fall bi yow faale woo dara faale woo dërëm ak or dundal ba sa meeri baaw loo filmé wul bugguma waaye sant waaye international. damay bàyyeegul de non boobu dañuy dem. waaw nañ nañ foog ñu dem daaru dañuy dem daaru dañuy màggali bàyyi daaru lañ sikóori rek waaw kenn borom daaru normal baat bi da ngay takk ba tëggu biir daaru sëriñ Mour moomoo maane bi daaru rek sikóori <laughs> oh, rek waaw ay ca Mansour Fall gërëm naa la bu baax a baax waaye sant ak gërëm ki nga xamante ne nii mooy moomoo maane 100 assurance nan ko namm nañ la lool ah di sant équipe bu Leewtoo TV ñëpp leen naan jaajëf jaajëf jaajëf ba beneen yoon ci beneen bër beneen champion beneen koñ beneen waxtaan jaajëf